Dakar Matin. ñi ngeeg euh, Demba Diop ñu gën koo xam ci euh, Diop si euh, Diop si coow li bari na trop li jëm ci wàllu ñiñ jox transport bi pour yóbbu aide alimentaire bi est-ce que mën nga leeralal sénégalais yi yow nan nga duggee ci mbir mi. Pape lay remercier ci woote bi comme ni ma ko xamee rek xam nga affaire bi offre la ñuy demandé woon pour kenn transporteur bu mun a def offre pour mun a participer ci. loi bi def pour transporteurs yi war dem dans les dans le truc là on a fait notre offre comme ni ñuy defee offre kii à chaque fois que ñu dégg benn marché wala benn liggéey bu ñuy def dañuy def offre déposé fi ñu Dakar Matin. on a fait comme comme tous les Sénégalais comme tous les chefs d'entreprise on a fait comme tout le monde on a déposé tranquillement les offres parce que on est transporteur comme les gens. ban leeral nga mën a indi si ñuy wax ne El Hadj Ousseynou Diouf footballeur moom moo sous-traité ak yow. sincèrement parlé nak ku ma xam-xam ni nak dépassé na lool tamit El Hadj El Hadj Diouf mënu ma traitel man bi may liggéey boobu na mom mom liggéey donc li ma ngi koy liggéey depuis 40 ans donc man liggéey bi may liggéey depuis 40 ans duma kenen keneen ma ci kenen pour mu pour mu traitel mako vraiment sincèrement parlé li mom dañuy wax lu leen neex mais lool sa n'existe gitu. waaw ci euh, mbir moomu tamit euh, ñu bëri euh, gros transporteurs yi ñuy wax ne Diop si wartoon bokk ci appel d'offre bi parce que ci mbalit lañ ko gën a xamee est-ce que mën ngay nuñ ci ay leeral. waaw mais Diop si ci mbalit lañ ko xamee mais ñoom transporteurs yi war nañu xam ni que. Dakar Matin. dama am ay camions yoo xam ne du ñu camion mbalit du camion mbalit rek lay am am naa camion yëpp ba pare ñoom transporteurs yi wax dañu fàttali que bi ñuy def renouvellement des gros porteurs man maa ko ñoom jiite wuñ ko. man maa jiite renouvellement des gros porteurs du Sénégal. Dakar Matin. man rek maa fi indi ay camions yu bees Sénégal depuis transporteur bi bi transport xewee ba léegi amul benn transporteur wala kenn koo xam ni def nga fi dara créé fi dara indi fi ay camions yu bees Sénégal man kott ko fi mos a def keneen mosu ko fi def kon mu mënuñu wax rek du ma transporteur dama judd ci transport mon père est transporteur dama judd fekk sama pap nekk transporteur ma nekk nekk nekk. waaw ci euh, loolu tamit euh, ba tey ñu ne euh, député nga waroo yëngatu ci wàllu chef d'entreprise am nga est-ce que am nga autorisation assemblée nationale. mais loolu moom vraiment du ma si tontu assemblée tontu na si ngeen ko gis assemblée tontu na si boppam loolu jarul ma si tontu tontu assemblée doy na set. maanaam assemblée jox na la kayit bi. non ne assemblée tontul na boppam waaw kooku moom du ma si tontu parce que ma tontu damay ñàkkal li ci dans une institution institution bi tontu na loolu dans les rives, c'est pas. Très bien. Benen euh, mbir mi timit euh, ñu bari euh, diko wax nit ñaa ngi wax ne suñu xeyma ci xaaliss yegg na ci 6 milliards. Est-ce que yow mën nga leralal sénégalais ñaata lay coûté? Non, loolu moom c'est pas vrai. C'est-à-dire 6 milliards moom xaw ma fan la jógee mais c'est une invention des nit ñi. loolu moom dañ ko inventé parce que amul fenn transport bi motul 6 milliards. li ma waxoon rek laay waxaat dama ne transport bi munul romb 1 milliard 800 C'est entre 1 milliard 500 et 1 milliard 800 pourquoi ñu wax Diop si rek du man rek waaye man may transporteur am na yeneen transporteur yu yu gagné pourquoi kenn kenn tudd la pourquoi man rek rek lañ ciy tudd je suis pas le seul transporteur hein bu gagné ci marché hein. tout le marché du man kenn maa koy hein. <laughs> vraiment c'est bi loolu comprendre gul mhm. donc ça ne ça ne fait pas un milliard huit deuxièmement le transport en réalité buñ ñu ciy def du ak un milliard deux parce que li ci def ça va servir de carburant pour l'armée ça va servir pour les ñi nga xam ne dañ joxe seen oto gratuitement vraiment am na loo xam ne aussi nañ rek tout le domaine du transport mënul dépasser tel montant donc ça peut être inférieur même à ça donc vraiment ku ñu tuddee 6 milliards it nit ñi dañuy wax lu leen neex rek mais loolu saa bis kañ ngeen fas yéene démarrer li nga xam ne euh, moo di transport bi pour yóbbu aide alimentaire bi parce que sénégalais yi soxla nañ ko jamono yi mais Pape liñ heure bi may wax ak yow ñun transporté gum nañu neuf mille tonnes déjà on a hmm. fait la région de Ziguinchor on a fait la région de on a fait la région de Louga, on a fait la région de Matam, on a fait la région de Kédou, on a fait Salamata, on a fait Saraya. Il faut que nous comprenions que nous, on passe notre temps dans le port du matin au soir de Ligue. Donc, en trois jours, on a amené 9000 tonnes. Donc, ce que les gens disent, nous sommes engagés. Mais nous, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en tout Demba Diop euh, maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf. Dakar Matin.